daaw bëréew ma dama année balance jël xale bu année balance jóge ci débét jël xale bu saf sap nag jaaxalu ma kene Mansour te dëgg naa nga ne ma sa retour booy ñëw boo ko soo ko bëggee marqué xale ne ci yoon ngay jël te moom daa nekk ci yoon gëj na daan te noonu laa def incha allah si kàttanu yàlla mais est ce que jëloo risque kàttanu yàlla incha bu taxawee bu taxawee xaar yow xam nga ma daanaka. naanaan nga. xam nga ma bu baax. xam naa la. nga taxaw boo xoolee kii xoolal xam nga ne. lamb waxul dëgg. mais waru woon na bëreeg booy yi. mun de ñàkkat ci doomu aadama tolof tolof. munul ñàkk day am. day dabe te yàlla da lay teg nat nga gëm yàlla. àcc moo ko. jaamu yàlla def li war yàlla teggi la ko. mais te bul ŋàññi benn doomu aadama. loolu bokk na ci gëm yàlla. man noonu laa mel naturel. incha allah si kàttanu yàlla bu neexee yàlla suñu borom bu ma ko jàppee dama koy daan. ana Laye Ndiaye bu Kewel si. ma nga nële toog. ma nga nële toog. danañ dina ma Laye Ndiaye moo toog nii si kanam. xoolal Laye Ndiaye nga nële. Eh, ak ko bëgg Ronaldinho. le. gis naa ko ma nële toog. Laye Ndiaye Laye Ndiaye noonu. Laye Ndiaye ak ko bëgg Ronaldinho. dañuy waa Tëngéej a ngi nii wax na waaye dañu dem xooli Clémenceau xoolal waa Tëngéej ma nga nee toog dala sës laay Njaay Koyel si waa Tëngéej a ngi noonu xaaral ma waa parcelle demal ñëw maa ngi ñëwaat ci yow bu ñuy dem boo ñëwaat ba neex nga fi fekk kon yaa toog plateau boo ñëwaatee maa fay toog ci kàttanu yàlla maa ngi dem ñëwaat demal ñëw maa ngi dem ñëw tey noo ñëwee waa ndam rek laa ñëwee waa day soog moom su taxee du yàgg defet def ana place moo la boole ak moom man damaa jóge si ay victoire dynamique de victoire man si ay victoire laa jógee xooluma ko sax xaaj moo ma boole moom mais du dara nee na fi moo tax mu jël la nee na ma boo taxawee dëggal sa bopp fii one minute la ma wax one minute. yow xam nga bu baax a baax. naan nan nga. xam nga li ma kabaabul ak li ma kabaabulul. naan nan nga. mosoo ma dellu ginnaaw. mosuma koo gis de. te tayee raw nag naa ko dóor ba mu foog ne ma dof. da ngay xeex. barki sëñ Bamba dama koy dóor mu daanu. Ronaldo yoo la tuddee boppam di. dama koy dóor mu si si ñoom aada ñu may teg lu métti. rendez-vous ci kanam maa ngi lay bëggee